bisimilah. benn benn question. asalaamaaleykum wa rahmatulah. man laaj bu may laaj xam naa jëmul ci gaas bi directement dama seetlu ma yamoon rok benn mbokk yore kaamil ci biir sëñ yi di jàng di dem ñu yàgg dégg nii ay sëñ kenn ko jàpp ñu gis ci beneen fànn tam jigéen boobu doon bare jabeel bi sal salam ba jël àddina léegi doon ñu koy yor si salal moom mu laajte ko ñu ni faatu na mu ni ma leen ma bambe la mu ne jigéen bu jëbal melam ndax jigéen boobu jigéen dafa tay fàtte bu boobaa jàng alxuraan day mën a nekk ci biir sëb wala parce que problème bi mooy ndax jàng alxuraan dañu koy yoral ci biir sëb ba alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah ñu jël ko jaamu ba alquran bi nga xam ne moom la tere ci biir sëkk mooy jàng ko nga xam ne danga koo def jàng dugg ci biir sëkk ndax néew ko fa tëdd wala boo ne fii kat bérébu jaamukaayu yàlla la naa fi jaamoo yàlla di jàng alquran loolu dañu jublu ci tere gi ñuy tere di jàng alquran ci biir sëg waaye jubluwuñ ci ab aaya sa xel wala nga doon tari say ahzab xam nga ne sa wird bés bi tey jii yaa ngi ci ay programme yoo xam ne tey soo doxul di tari bu dee kuy dox di tari la doo ko jeexal te bëgg nga koo jeexal dox ba yóbbu la ba ci sëg ya bokkuloo ci ñiy gas ak ñiy suul nga taxaw di àggale sa wird boobu dara newut Euh, mbir mi buñ ko waxee ci rek jamono bii nga xam ne mooy kii daa am bokk tarixa bi am mbir bu sàngam mbir bu ko buñ ko waxee ci as-salafu saalih mooy li nga sas sa moo xam alquran la moo xam da ne dinaa def subhanallah bihamdihi nangami yoon wala astaghfirullah nangami yoon wala naa jàng ñaar nangami xisib par jour loolu mooy wirit ci lan bi ñu as-salafu saalih ridwanullah mu ne sa mbir bi jeexul nga di ko àggale kooku dara dawul nga jàng ci biir bàngal waaye boo déggee ni ñu sib te bokk nañu ko gën a sib mooy ngiiru réew mii nga xam ne ngi ci bari ñu leen ne ah lii di xadis rod na ne ngir bi lii la wax jiital ngir wuuteeg xadis wuuteeg imam Malik ca la mu moom Malik bokk na ci ba loolu ma ko ca risaala Yaasin bi ñuy jàng boo demee ca sarx ba Tamarud Daani dañu waxee Malik sib na jàng ci bàmmeel wala jàngal pour jàngal néew buy dee te Samaru Daani yi mi ngi wax laa bi xusuus yaasin yaasin du ci exception yaasin du ci exception lan moo tax ndax xadis ba wérul ca maanaam xadis ci ñëw waaye xadis bu wérul te Maalik bokk na ci ña ko jaw su ko defee mu wax moom saree ba ne ci mazhab bi moo xam jamono bi muy sukuraat nga koy jàngal yaasin wala bu dee wala ca bàmmeel bi buñ koy suul loolu lépp Malick Sy xam ngeen ne Malick dee muy gën a amee doole mooy ñi nga xam ne dafay rekk teew moom mu dund ak njabootu saxaaba yi ak seen taalibe yi ci Madinatul Munawwara di suul baqiya toujours Madina ak li ko wër ku dee doq yi am léegi du man ñi ne rek ak li ko wër ku dee dañ leen di doq yi am ba fa yonent bi sallallahu alayhi wasallam su ko defee loolu naka lay répété woo ñoom ñu daan fa jàng alquran loolu di ko jàngale néew bi te moom mu koy si te du ko xam wax ma la mu koy si loolu yomb beneen bi di nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee boobu su dee mazhabu Maalik amul complication ndax mazhabu Maalik jullee néew amul jàng alxuraan ci mazhabu Maalik jullee néew amul jàng alxuraan du farata te du saar dañ ne loolu julli ga salaa bi ñaan lañ ci jublu doxaa lañ ci jublu waaye xadiis sax na te wér ne Yonent bi salaa sallam daan na jàng alxuraan ci biir julli Atiyatu bnu Aswad ne damaa jullee julli ci ginnaaw Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu jullee néew nee na ma dégg ko mu tari fatiha teg cib saar yëkkati ko ci kaw nee na bi ñu noppee ma laaj ko mu ne innama faaltu haada li taalamu annahu sunna dama koo def pour ngeen xam ne sunna la waaw bu boobaa ñu ne mënees na cee jàng alquran day nekk xaadisatu ayn maanaam maanaam xew-xew benn mbir la woon mooy ndaw sax dañ koo julleewul ma soxlaa dañ koo yëgalul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te moom suul nañ ko noppi yonent bi bëgg koo jullee amul fenn fu mu koy mën a jullee ba mu foofu ca bàmmee mu dem foofu jullee bu boobaa loolu dugg ci tere bi moom dugg ci tere bi alhamdulilah euh, imaam Ahmad gannaaw sant yàlla ci seen yokk sa xam-xam te bàqee ko li doon leer rek mooy si li nga wax sànq si wàllu benn passé si naan comme wax dëgg yàlla. dañuy faral damay faral di dégg ñu ne loolu saxaaba yi rek lañ ko lañ ko jagleel. waaw léegi est-ce que loolu masal borom xam-xam bu génn àdduna ndax mën nga ko wax rek yàlla waan bu jublu si ñaan wala wala loolu dafa am lu koy wala. yëf yi ñett la sallallahu alayhi wa sallam alayhi salaam radiyallahu anhu ñeent kon rahimahullah rahimahullah ñëwul ab texte boo xam ne da leen a séddalee nii ne nii lañu ko war a def waaye dafa am lu ko waral dafa am lu ko waral ci tàqale nit ñi ni nga leen di jagleel selon seen ngëneel mu dem ba siiw mu dem ba siiw wala si bëri bu ñu waxee yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bu yonent yi ne alayhim salaam ñu jël asalaam ba bàyyi salaatu bi fële ci ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu commencé est ce que ça veut dire ne kon yonent yi kenn julli ci ñoom dañ leen di ñaanal rek asalaam déedéet déedéet bal ñëw na ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne dee leen julli ci yonent yi comme ni ngeen di jullee ci man dee leen julli ci yonent yi comme ni ngeen di jullee ci man loolu day tekki ne mënees naa julli ci ñoom donte nag du tekki zaahir ba ne ni ñu salaatu ala nabi waree noonu la ñu bële waree loolu ku ne xam na ne du noonu la ñu waree ci wàllu ngëneel kon toujours ñuy wax sallallahu alayhi wa sallam ci li ëpp yonent yi ñuy wax alayhi salaam waaye dara newul ci nga ne Ibrahim alayhi salaatu wassalaam al anbiya alayhim salaatu wassalaam ñaanal leen ko loolu dara newul waaye bële jëmmi tàqale la ci ngëneel naka noonu saxaaba yi ak ñi ñëw ci seen ginnaaw noonu tamit la demee ndax bu fekkee waxuma la yonent waaye sallallahu ala fulaan mën nañ ko wax sax te dugg yonent mais su def na waaye ndax dina teg mu doon loo xam ne dana koy jël rek aada woo ko habitude woo ko déedéet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na sallallahu ala ali bani awfa yàlla julli na ci moom abu muslim alxawlaani wax na ca akanam abdullah ibn masud ne ko sallallahu ala muaad yàlla yàlla julli ci muaad ndax tax na abdullah ibn masud tere ndax loolu mooy abu muslim alxawlaani day jëli baaraam comme ni ñuy def di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wàññi di julli di wàññi mu naan sallallahu ala muaad sallallahu ala muaad kon noonu it li ngay ñaanal saxaaba yi ak ñeneen jul ñoom nga tàqale leen tamit ci wàllu beneen te dafa mel ni tamit ñaan la boo xam ne dafa làmboo xibaar dafa mel ni luñ la xibaaree ne yàlla daf leen ko def loolu ngay ñaan yàlla yokk même ci salaat inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi nga dugg ci rek di ko ko ndax am ca yool ba ak yiw ba waaye moom nga ñaan ko ñaanaloo ko yàlla koy def du dëgg noonu tamit saxaaba radiyallahu anhum dañoo wóor ne radiyallahu anhum laqad radiyallahu anil muhajirina wal ansaar ban saxaaba moo ci gën ku ci dul muhajiri wala ansaar ah kooku dañu cee am firnde mu wóor ñu loolu wóor ñu mel ni moom lañ leen di dollil di leen ñaan ñaanal comme ni ñu wóoree ne yàlla day julli ci ti bi sallallahu alayhi wa sallam ñu dolli ko ñaanal. jullit yi ñu dul ñoom rawatina ñu baax ñi loolu tamit wóoru nañ ne yàlla subhanahu wa taala daf leen a dig yërmande ummati hadihi ummatun marhuma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko sama xeet bii xeet bu nu yërëm la mel ni loolu ci ngay tibbee tamit di leen ko di ko ñaanal kenn ci xeet wi kon am na cëslaay ci nii ma leen ko waxee am na sabab it ci gën gënante bi nga xam ne moom la ñu gënante waaye tekkiwul ne ñeme wu ñoo ñaanal ab jullit ne radiyallahu anhu rawatina na buñ ko ko yaakaarale ndax ñaan mën nañ koo ñaanal mais nag ñuy jël di ko ko saxalal ci li mu miin ci li mu miin ci waxiinu magi lislaam yi jiit dootuñu am xadim du lu nu miin ndax rahimallahu mën nañ ko ñaanal ku ne même bu dee sax ab kàccoor la kooku ma ne dafa mel nu ànd ak seede rawatina dafa am ay mbir yoo xam ne dafa am lu ko dafa am lu mujj jug naan ñun ñii danoo murtat ci ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa danoo nanga ak nangam ak nangam mooy jur ñi nga xam ne ñooy ahlu sunna ci jamono ju ne di tontu di taxawee taxawaay bu wuuteeg seen bos te duñu ko fent mais dañu ko jëlee ba ki ci nusuus yi masalan allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain wa sallallahu ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain dem na ba ñu miin ko ku mais salaatu ala nabi ne waawulal ak wa sahbihi mais ba ay nit jógee di leen rëbb di leen móolu ñoom saxaaba yi ridwanullah alayhim bëgg a peggoog alal bi muy aalu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bi waa këram ñee ñu leen di móolu ñee ñu leen di gërëm am sunna niin di leen ci dugalaale di leen ci dugalaale mais tekkiwul ne salaatu ala nabi bi nga xam daa ànd ak aalam saxaaba yi ridwanullah alayhim dañ ci dañ ci dañ ci ko defee yooyee noonu la demee dafa am yu koy sabab yu koy waral mais du caageelu nag kenn amul droit wax ne diw radiyallahu anhu même bu fekkee ne du saxaabi sallallahu alayhi sax ma ne wax nañ ko ci ku dul yonent waxuma laa nag yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu laa ci xam loolu laa ci teewul wallahu alam. jël benn question

ne dañuy gis ne des fois soxna bu bu jullee dañu am jafe-jafe ci ci loolu ñu li njëkk aaya boobu soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom nag ñooy royukaayu mboolem jigéeni jullit waaye nag sàmmook fegu dina egg ci ñoom ci ñu farataal ci seen kaw sax ñu farataalul ca ña dana hmm. àgg ca ñoom ci ñu farataal ci seen kaw lu ñu farataalul ca ña ndax seen worma dem na ba seen kanam ñoom farata la bi ittifaaqi ahlil ilm amul wuute wuute gi mooy kanam ñeneen ñun ñoom ndax farata la ñu wut wala déet wa ida saaltumuhunna mataan fasaluhunna min warai xijab loolu ñoom ñoo ko moom siyaaq bi tamit maanaam wala li laaj dara na ngeen leen ko laaj ci ginnaaw xijab siyaaqu aaya bi tamit ñoom la doon waxal faqarna fi buyutikum moo tax Omar bnu Xataab radiyallahu anhu dem sax ba yonent bi di ko corrigé ci soxnaa yonent bi laa wax wala ñeneen ñi moom bëgg a baax valeur waxtoo ji rek ne bu ñu génn dem ba suñu yaay Sawda bis dafa génn romb moom dafa amoon jëmm radiyallahu anha mu ne ko yaa ngi nii sa jëmm du du làpp nit ñi xa nit ñi xàmme nañ la yamal ci sa biir kër Sawda wala bu dem ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko jooy Yonent bi ne ah yàlla may na leen autorisé na leen ngeen génn ndax seen aajo yàlla autorisé na leen ngeen génn ndax seen aajo aywa ñooñu waa kër Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li nga xam ne li far ci ñoom ci ijaab moo gën a ëpp sax ña ca des ndax seen worom man wax ma la ña ca des ña ca des boo bëggee xam li ñu leen may ak li ñu leen mayul delluwaatal rek ba léegi surtout ci xadiis yi rawatina kitaabul adab ci saxiixul Buxaari yenn sew sew yu bare bare bare ba ci jigéen jaay ak jënd di jaayante góor ñi di jënd asma jënd ak yu bëri doon jaayante góor ñi di jëndante ñoom dafa daan def naka noonu dem na ba buntal buntu jigéen ñi mën na dem seet góor ñi feebar buntal na ca kitaabul marda foofu la ko dugal kitaabul marba benn bis waxoon naa ci kitaabul adab dama juum bi ma demee dama jóge fii loolu delluwaat sama xel mel ni sikki sàkk ci ma waaye ci kitaabul marba ko dugal mu ko jigéen mën na daal dugg ci marché bi ñoom jigéen ñi daan nañu dem ci seen aajo rawatina nag te tamit terewul mu aay boobu terewul jigéen ñi waaye yeneen aaya yaa ngi fi yeneen xadis yaa ngi fi leen sant li mu leen sant tere leen it li mu leen tere fi leen fa mu jëm ak fa muy dugg ak bu booba mën na faa dem mën na faa dugg ndax tere yaa ngi fi de ba léegi di ko gunge di ànd ak mu wéet bu mu saafanteeg góor mu di taxaw ci palaasu tuuma mu di waxanteeg lu dul xawlam fan wax joo xam ni wax lu njëkk la ku ko dégg xam ni génn cadre mu jekk yooyu yëpp mu ngi fi dañu sajj seen bët bu boobaa mën na dem liggéey rawatina loo xam ne nag jigéen ñi ñoom ñoo ko soxla te àdduna bi ak jamono nii mu toxee nii dem na ba di ko tere sax ñu koy tere ci biir kër yi dem na ñuy tere di réewle jigéen ñi ci biir kër yi aywa kon buñ koy defee ci hôpitaux yi lañ koy defee ak ci béréb bu fajukaay yi ñu tabax bu boobaa jigéen ñi buñ fa demoon ñu fay dem bu ko jigéen ñi demul ña la fay dem lu yées moom mooy amati hmm? lu yées moom mooy amati boobu moom taxul ñuy wax mais même yeneen yi nga xam ne góor mën na koo liggéey jigéen mën na koo liggéey xere ak ñëwul ne jigéen du liggéey ku am texte boobu na ko indi waaye dafa am loo xam ne naka jekk daf ko koo digal am loo xam ne naka jekk na ko koo tere yi ma ko digal na mën a sàmmanteeg moom fu mu jëm yi ma ko tere na mën a moytu leen fu mu jëm bu boobaa loolu moo koy conditionné bu boobaa loolu moo koy conditionné wallahu alam salaamaaleykum question bi ma mooy sànq ci wàllu dayus ndax euh, da ciy dugg ki nga xam ne masala ñëw na ci a mu ut fa abonnement internet mel ni wifi léegi dëkkandoo yenn dañ yi koy laaj code bi léegi ci wàllu jëflante bu rafet nga jox leen code bi mais ñenn si ñoom. da ngay gis ne dañ ciy téléchargé ay mbir yu safaanu bu baax a daal. Mhm. soit ci ay musique wala ci ay film yu. Mhm. bon daal. day mhm. foofu ndax ci joxe code bi da ciy am wàll ci wàllu yàlla subhanahu wa taala di wax ci yenn ay. waaw lépp loo xam ne dañ ko mën a jëfandikoo ci lu baax das yi ak yeneen i das. njàngum alquran gëstu jokkoog say mbokk mën koo jëfandikoo ci lu bon di ak seetaan ay film yu ñaaw ak yu demee noona bu boobaa ki koy joxe moom na yéeneem nekk lu baax ne lii kat nit mën na cee jëfandikoo lu baax mi ngi mel ne ki nga abal paak ndax li ñu xam ne paaka boo ko abalee nit daf cee dàgg lu koy jëriñ ba mu wóor la nag kii da ci agressé moom loolu dong la koy doyee bu boobaa doo ko jox ndax léegi yow xam nga ni benn boor bi rek bi ñu tere la koy jëfandikoo waaw koo xam muy sa njaboot muy ci keneen ci dëkkandoo yi ne moom lii rek la koy doyee kooku ko ko mais su dul boo xamul yow ci yéene bi nga yéene lañ ngay fay ndax mbir mën a jëfandikoo la ci lu baax bu boobaa yow ci sa yéene bi nga yéene lañ ngay fay moo tax ñu dagalal di bay raisin raisin dañu koy bay te mën nañoo nee nañu quatre-vingt-dix pour cent ci sangara yi gën a siiw ci àdduna ci base de raisin ci raisin lay jóge ndax loolu dina tax mu tere suñu koo tere bay raisin ndax fruit bi la mën nañ koo jëfandikoo ci lu baax ba mu wóor la ne nag kii to raisin kenn ko fiy jënd su dul loolu boo ko bàyyee day yàqu kenn du ko fi jëfandikoo kenn dong moo ko fiy jënd te kooku moom usine sàngara la yor moom la koy defee booba ba waaw waaw maanaam